procureur de la république daal di sàkku ñu ubbi ay enquête ngir gën a leeral mbir yooye ndax lu journal boobee fësal day daal di won ka ne deewu kookee di Mamadou Moustapha Ba bëri na lool lu ci daal di lëndëm si li ni mel journal bii di l'observateur ne kookee di Mamadou Moustapha Ba ginnaaw bam bàyyeekoo ci réewu Sénégal daal di dem ca réewu France kiit ak moom moo sabab jabaram bii di madame Ba daldi dagg tamit akub ticket daal koy fekk ji foofee ca France ndax kookee di madame Ba dafa toog ay jours yu bari déggantewul ak jëkkëram boobee di Mamadou Moustapha Ba te kookee bokkul woon ci lu mu tàmm te mooy mu daal di génn te du jokkook famem bu nekk ci réewu senegal li ni mel nag moom moo sabab kookee di madame Ba daal di dagg akub ticket daal di fekki kookee di Mamadou Moustapha Ba ngir jéem a xam ci lan la daal di nekk kookee di madame ba nag ginnaaw ba mu àggee foofee ca France dafa daal di jubali directement ci hôtel bi nga xam ne ne bu àndoon ak kookee di mu Mamadou Moustapha Ba foofee leen doon am habitude di installé wu. kookee di madame ba nag ginnaaw ba mu àggee ci hôtel boobee xamaloon nañ ko ne jëkkëram bi si la daal di dal ginnaaw ba mu àggee ci néeg ba nag gis na bagage yi nga xam ne ne kookee di mu Mamadou Moustapha Ba moo ngi ko yore woon dara bougé wu fa waaye gisul woon jëmm kookee di ma Mamadou Moustapha Ba si noonee la kookee di madame Ba tàmbalee di seet jëkkëram boobee di Mamadou Moustapha Ba biir France ba daal di mujjee teere ci benn hôpital ñu daal di koy génnal néewu jëkkëram ngir mu daal di koy identifier kon mun nañoo wax ko ne ci deewu kookee di ma Mamadou Moustapha Ba kenn xamagul ban bés exactement la daal di décédé kenn xamul circonstances yi nga xam ne ne moom la dee waaye tamit kenn xamul lan moo sabab mu daal di ñàkk bakkanam ginnaaw li ni mel kii di Birima Gueye ñu gënoon ko xam ci émission bi ñu dippee jàkkaarloo ginnaaw ba kookee di aadama fay di mag ci Marème fay sàll génnee daal di yekk lu mel ni xeme président Macky Sall ak kookee di Amadou Ba daal di wax que ne ñaar ñooñee xaalis rek moom moo sabab mënuñoo daal di juboo kookee di Birima Gueye daal dina ko siy koke di biri ma ne Adama Faye kaddu yu ñaaw yum jël dal di koy tek ci ndodd di président Macky Sall ak Amadou Ba ne kaddu yoyé yépp ay katch la ne ke di Adama Faye lolé mu doon wax mais amul benn logique ndax ne kookee di Adama Faye lu mu waxoon moom mooy am aku homme d'affaires bi nga xamné ne da waron djébal jébbal di président Macky Sall lu tolloog 10 milliards de francs CFA di Amadou Ba da jaar ci souf encaisser xaalis bi ba noppi daal di jébbal kookee di président Macky Sall un milliard de francs CFA daal di jël li des mais kookee di aadama fay nag xanaa ba muy wax li ni mel daa foogoon ko ne ay dof lay waxal ndax ne ba mbir moomee di am kookee di Macky Sall président la woon ci réewu Sénégal te ne président moo ëpp information bépp nit bu nekk ci réew mi donc ne kon kookee di président Macky Sall naka la ko akub homme d'affaires di doon mën a yorelee xaalis bu toll ci dix milliards te homme d'affaires boobee dugg Sénégal te kookee di président Macky Sall yëgu ko woon donc ne kookee di aadama fay li mu doon wax yëpp ay kàcc la te nee nag daarus benn frère kookee di Adama fay moom moo sabab ba tey waxut jëmale ko ci famille kookee di Marème fay Sall ne kookee di aadama fay bis bu génnaatee daal di songu leaderam bii di Amadou Ba ne dina ko daal di waxal li nga xam ne ne bu paree waa famille Marème Faye Sall dañuy daal di mbooloo daal di oote akop réunion de famille ndax ne réewu senegal réew bu ndaw la nit ñi xamante nañ xamante nañ seen biir ay secret te ne lu leer ba am moom mooy que ne xamal na famille kookee di Marème Faye Sall wax juréy joo xam ne ne bis bu ko fi waxee ñoom ñëpp dinañ jël seen loxo yi daal di koy taf seen gémmiñ yi ginnaaw li ni mel kii di général Souleymane Kandé ginnaaw ba kookee di président ba Bassirou Diomaye fay jëlee ndogal daal di koy jëlee ci njiitalu armée de terre bu mu nekkoon ci réewu Sénégal daal di koy affecté daal di ko yóbbu foofee ca Inde ci New dali li ni mel juróon na ay coow ak spéculation yu bëri yu doon bàyyeekoo ci analyste yi si li ni nag si li ni mel nag chroniqueur bi ñu dippee caporal Ousseynou Fall di akub ancien militaire daa yëkkati woon ay kàddu daal di xamal sénégalais yi que lu sabab kookee di président ba Bassirou Diomaye Faye jël ndogal daal di affecté kookee di général Souleymane Kandé moom mooy que ne kookee di général Souleymane Kandé da loon préparé aku coup d'état daal di koy jëmale ci jëmm kookee di président Bassirou Diomaye fay te loolee moom moo sabab ñu daal di koy affecté ginnaaw ba chroniqueur bii di caporal Ousseynou Fall yëkkatee kàddu yooye nag li ni mel dafa daal di viral ci réseaux sociaux yi maanaam vidéo boobee ñu ëpp ci sénégalais yi daal dinañ koy seetaan loolee nag moom moo sabab ki nga xam ne ne moom mooy principal concerné bu ñu doon tuumaal ci vidéo boobee te muy général Souleymane Kandé kooke daal dinay jébbal akub plainte daal di koy jëmale ci jëmm kookee di caporal Souleymane Fall ngir mbir mi ñu daal di koy leeral lu leer ba am moom mooy que ne bu fekkee ne chroniqueur boobee di caporal Souleymane Fall li mu wax amul kon ay daan yu méttee métti moo ngi koy xaar ndax kii di président Ousmane Sonko. ci biir campagne yi si lu yàggul dara xamaloon na ku la chroniqueur journaliste wala ngay yëngu ci ay information nga daal di bàyyi coowal général Souleymane kande bi ndax loole daa jëm ci sécurité nationale donc kenn waru ko mën a fooye ndax day taalu réew kon kookee di caporal Fall bu fekkee ne lu muy wax du dëgg kon am na sérieux problème ginnaaw li ni mel kii di Anta Babacar Ngom ginnaaw ba ko kookee di maître Abdinaar Ndiaye di responsable juridique ci parti bii di Pastef porté plainte si lu ay garde corps am songee woon akub caravanu Pastef ba gaañ ci ay nit kookee di Anta Babacar yëfu xale la daal di jàppee plainte boobee si li ni mel kookee di Anta Babacar ne moo ngi dégg akub coowul plainte buñ daal di teg ci ndoddam waaye ne moo ngi rassuré képp kuy ànd ak moom ndax ne ñëpp xam nañ ko ne moom prôné wul violence doxut ci violence te xamu ko kookee di Anta Babacar Ngom daal di wéyal ne lu sabab ñenn ñi daal di jël aku plainte daal di koy teg ci ndoddam moom mooy que ne dañ koo daal di ragal daal di ragal ci coalition bu mu bokk te muy sàmm sa kàddu di coalition bi nga xam ne ne moom moo war a ëpp député ci élection législative yu ñu na ma amal le 17 novembre 2024 bi ñu jëm nee nag waa pouvoir bi dañoo daal di tiit lool ci jëmam daal di tiit lool ci coalition am moom moo sabab ñuy chercher di ko intimider naan dañ koy porter plainte waaye ne ñu bokk ci pouvoir bi nañ ko daal di xaar biir assamble nationale ndax ne guddi guddi mook ñoom ñoom ñooy bokk foofee ca biir assamble nationale te nee nag waa coalition sàmm sa kàddu ñoom ñooy am majorité écrasante bi ci élection anticipée yi na ma amal ci réew mi di Sénégal le 17 novembre bi ñu jëm. lii la ñu comme actualité ñoo ngi leen di jox dig daje. Kene'nin bir inşallah.